ñu ne ko alaaji man mu ne bàyyi ili bàyyi ili tëb ne ko kaala biiral man mbayeg ne ko koo gis mu fiir ba muy xale koo gis mu fiir ba muy mag ba muy xale xaj la woon xoola bii xam-xam seetal xam-xam bii ma la wax bul jël xaj gi def ko saaga xaj xaj du saaga ba doo puus ni xaj nga foofu xaj nga foofu xaj nga foofu danaan xaj naa kon xaj la tudd léegi mooy dafa baax ba loo ko jox ci lekk xajoo na ko su ko lekkee pare na xaj du baadoo la xaj toppul ay wax pour nga jox ko xaalis ak saaga ñëw toogaan nga jox ko dara xaj melul noonu xaj du façon yooyu nga gis sunu baay yooyu ni daan théâtre bàyyi ili ëmbal ko euh, ni ëmbal ko ne ko maa kaal ëmbal mbayeg ne ko koo gis mu fiir ba muy mag ba muy xale xaj la woon ndax lam doon def ci xale lay bañ ko def doomam te ku ñëw këram mu dàq la ne du maye doomam loolu indi wax ji nu mujj a yàcc yooyu joué yooyu ñuy joué baax na mais quant ay mabba sol kiloot ante sol kiloot ñu wane leen ci néeg ñu fay làmp bi ñoom ñaar fay làmp lu mu ca doon leçon la kilo teg kilo leçon la tëdd ci lal leçon la lu xel yi xalaat après xanaa lu bon. lu bon rek lay xalaat. donc loolu nga wax dëgg la mais mënoo ci dara télévision yi ma bëgg a wax. télé yow sa télé yaa ko jënd wala moo waaxu ñëw sa kër. sa télévision. daa waaxu ñëw sa taabul tegee fa wala yaa ko jënd teg ko fa. yaa ko fa teg ndax mu ubbi boppam wala yaa ko ubbi. yaa ko tijji la nga ciy gis moo la ko xool la yaa ko xool yaa ko xool kon donc télévision yi defuñu dara mënoon ngaa sappi dem feneen waaye yaa bëgg a xool lool xam nga kiy yàgg <laughs> dañu amoon suñu <laughs> nag eh, élèves yi wàcc cinq heures noonu waa lycée bu sëñ Babacar di wàcc bëri lool fees tali bi mu ngi toog ci basang gi ci buntu kër maam xalifa jigéen ñi di ko romb mu naan nii di di xeelu ndaw sa naan ko oustaz allah ji xoolal lii xoolal xoolal rek gisoo li may wax de xoolal xool gis nga xoolal rek am ko ko ne góor gi itam waneetoo da ngay xool mu ne maa tey di wane dëgg mais seetal nga mag looy toog ci mbedd boo toogu tooguloon mbedd da nga gis bay wane mais mag day am place sunu mag ñi amatuñu leen sunu mag ñi kenn am ti kat boo génnewoon woon théâtre yu jëkk yi gars bala kenn du la seetaan. kenn du la seetaan dañ naan kii kon la yu xeewi lay indi. or que ca la xam-xam ne man moo du Resso bu tegee sunu théâtre yooyu yooyu rek laay seetaan jamonoy tey daaray Kocc yooyu rek laay xool. Mm. ay góorgóorlu waaw. sonaat barki démb lañ ko mujjee teg sonaat mm. dama koy seetaan to ñoom day muur. soo tut tut tut tut non njub gi ci tafaa rek njub gi ci secrétaire liggéey nañu ko lu ne def nañ ko ko dafa sax fi mu sax rek jabaram mere na ko mu sax fi mu sax rek doom yi mere ko rek mu dal ci seen kaw waaye mujj na gañe dëggam yooyu muy théâtre théâtre école la danga war a jàngale waaw da war a jàngale waaw ah, ngeen di jàngale moo gën c'est ça. dëgg la xam naa li ñu ci doon ci waxtu daanaka jeex na dama lay bàyyi rek nga nga def sa kàddu boo xam ne si nii moom ngay tëjee ñu yëkkati. ah moom de xanaa ñaan président Macky rek <laughs> suñu mbokki catholique yi daal buñ bëggee feetu na leen bàyyi ñu feetu di jox leen digal ñu def ay espace ak ay këf kii masque. bu ñu bëggee laa wax de man waxalu ma leen de. Mm. da nga fiy wax nit génn dafa sob ko ko ko waxloo man waxaluma leen de man damay wax li damaa wax li baax. Mm. su fekkee gënal na leen ni ñu bàyyi julli di ñuy julli seen jàkka di def seen xadara def seen wasifa ak seen daayira dañ leen may seen weer wi ñu def ko. 24 la. 31 la ñaari jour la aayul bu laajee ñu saytu ko sax taxaw taxawaay boo xam ne danañ ko mën a def dara du xew baax na. parce que itam ñoom yàqaluñ kenn dara dëgg yàlla catholique yi ku ne xam ne yàqaluñ kenn dara yàqaluñ ñu tooñu ñu ñu xataluñ ñu jàmbure lool nag même émission yi nga gis doo dégg ñu sànni xeer kenn déglu ko am na ko ne Sud FM benn catholique am na ko fi ne mais am na ko mu invité woon ñoom ñaar ñuy waxtaan ba yeggal duñ tudd Jean duñ tudd Paul duñ waxu wax ju niru sax ne ma baa ko moom Iran nag buy commencé ngeen lii di woo ko moom wóor na ma ne tur bi doo nga ko dese waaye moom la ci nam nga dem koleel ma ko nag dóor sama wax dóor waxam boole kole kole leen ndax ngeen am wii yu doy maa leen ko sant dara nekku ci donc loolu rek la président ñaan ko mu dimbali sunu mbokki catholique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 713 vingt 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax